Rewmi 24 TV bismillah dal leen ak hebar. Euh, ci xibaar mercredi 24 janvier 2024 mu mel ne Bougane Gueye Dany jamono yi coow li daal dina rek retourné euh, jëm ca booram ginnaaw ba nga xam ne rakkale nañ leen moom mii di Bougane Gueye ñu daal di koy rek interview ngir rek mu mën a wax ci li nga xamante ne mi ngi lëmbaaje jamono yi mooy Macky Sall da leen a war rek recevoir ngir ñu mën dialoguer rek di xool seen ay candidat moom mii di euh, Bougane loolee nag tontu ca euh, tontu bu leer mu mel ne kon la mu wax rek mooy ñi ma àndal ak lu ñu décidé euh, instant bi ci loolu laay xaar waaye man buggaan mënuma rek jël benn décision mu mel ne kon ñu bari la ñuy wax ne li muy wax gëmm ko benn yoon ndax bu doon ne gëm na boppam ngi mu tuddee boppam loolee dafay euh, indiwaat kon wax ji mu waxoon ca yeewi askan wa ginnaaw rek ba mu fa kiitee ci lu matul 72 heures di wax ne rek ay affaire couleur moom moo ko fa jëlee te loolee ku ne xam na ne mook mbooloo ñoo ko bokkoon loolee waral digluwul kenn dem ak boppam moom kon bii yoon bu ñëwee ne wat day digluwaatu waa partem kon loole waa coalition am dafay mel ne rek loole du wax ji mu mu mel ne kon Bougane jamono yi ñu bari rek euh, lañ koy waxal mooy rek euh, dafa rek bëgg wor askan bi waaye rek dialogue boobu bu ca demee rek boppam la yàqal ku ne xam na ne candidat euh, mënu koo doon ndax béy wéy na mbuus ba pare la conseil constitutionnel décidé décidé na ko kon Bougane Gueye jamono yi mu mel ne rek coow li daal dina koy topp